moom gone gi ndaysaan bi muy dugg si ci làmb di ñëw ñu bari dañ doon wax ni munul dem munul doon champion waaye li mu jiital mooy gëm boppam loolu la njëkkee ne lépp lu mbër di am ci làmb man dinaa ko am ci làmb gannaaw loolu ba tey muy fayeeku deux millions trois millions un million cinq cent waaye gis ngeen ko mu ngi noonu ndaysaan ndaysaan Siteu waaye nice mais yéen booy journaliste booy ni mu bëri bëree noonu ngeen bëree. ak kay. rek sant yàlla ah. waaye li ma ci nam mooy yéen journaliste ndaw yi ngeen ñaanal ma ndam. kay amuñu droit ñaan. waaye xanaa ñaanal leen yàlla ngeen nekk ay journaliste loolu lañ ñaanal mbër bu ndaw bi ànd ak moom. yéen ñëpp suñuy fan. waaw yéen booy boo leen wéetee ñaanal ma xam naa. Siteu dañu gis beneen Siteu bu bees nga dugg si concentration ñu gis beneen Siteu lan bis bi moo toll foofu wala Papa moo toll foofu. waaw bis bi moo toll foofu. ndax bis bi toll la foofu. waaw mais loolu nga ma laaj toll wax naa la ko kay. bu nekk bëre nga ko bis bi Papa du mbër bu ndaw. nuyu naa leen mbasa mbasa. da duggoon parcelle. daan Zos moom mu loolu metti ko loolu mu ne mu ne Zos mi nga daan boo njëkkoon ci moom doo laal keneen kon roi des arènes nekk parcelle mu ne moom am nañ indépendance mais moom fi mu toll nii démocratie parcelle lay xeex te ci yow la koy njëkk. waaye man may doomu parcelle parcelle li ma fa am sax moom da ko am moom moom moom nan nan la ko loolu méttee zos moom mu bëreeg zos daan ko ma bëreeg zos daan ko nga naa ma loolu da ko métti. non nee na bi mu bëreeg zos boobu mu ngi woon Fass. booy del xool li ngay wax bu baax nga naan. de couleur parcelle lay défendre actuellement. ñun ñun ñun ñun ay mbërum réew lañ ñun yemaluñ suñ bopp fii jàmm gën lañ dëgg nag dara boobu mooy daw si ñun mais li nekk parcelle di may bëggee. barke alxuraan bëggee wuñ ko moom kon man ak moom làmb moo ñu boole damay bëre moom daan ko dem sama yoon. ñu doon barrière yi yéen ñaar ngeen taxaw ñeme ngaa samp jaaga jàkkaarloo Papa Sow. dégguma. ñëpp nee nañ a xeex est ce que buñ tëjoon barrière yi ñeme ngaa samp jaaga jàkkaarloo Papa Sow. da ngay laajte wala da ngaa xam. may laaj waaw mbasa mbasa. wala premier août. jaajëf Siteu. ndeysaan xale baa yi noonu. ndeysaan dégg ngeen ko. ndeysaan dégg ngeen la mu wax. ma nga noonu ndeysaan nee ko ñaanal ndam mënuñu koo ñaanal ndam ndeysaan ndax ñoom ñaar ñëpp suñuy frère lañ jëlal jëlal ndeysaan loolu làmb la